man damay je pèse bien mes mots président Macky man je le connais moom laa njëkk xam ci euh, Ousmane Sonko te dem naa toog ak moom rencontré ko mhm. ci malgré ci biir euh, situation bi ni mu tàndi woon bu fekkee ni amul information nañ ko jox les vraies informations. si c'est pas indiscret. tey jii lii am na information. parenthèse si c'est pas indiscret boobu daje. non foofu laay ñëw man mi la ko tudd fii kay pare naa pour wax la ko. Hmm. mooy dama laa wax ni tëbuñu rek jël position avant ñu jël position def nañ médiation jéem pour jàmm am. waaye bi ñu gisee ba ñii ñu ko seqal ni parewuñu pour pour wax ak nit ñi ci ci loi li ñu bëgg mooy forcing jaay nit ki doole léegi nag ñun ci lañ taxaw mobiliser mbooleem ku gëm moral gëm éthique gëm déontologie gëm contre pouvoir pour ñu taxaw def bouclier ci ginnaaw Ousmane Sonko nga xam ne bis bu rendee Ousmane Sonko dina rendiwaale doomu daara yi ak doomu soxla. le problème est-ce parce que am na ñu def médiation te faruñu fenn. waaw a crédible bu ñu waxee parce que dañu xam ne li ñu wax. te akulaay taala wax mais nit bu faree rek. souvent dafay am benn penchant est-ce que tam doo am lu mu leen wàññil. ci nit ñi man xam nga ni Ousmane Sonko yorul sama dépense. bi ma koy xam fekk na ma am ma avec modestie samp naa ñaari kër di ab imam yaa ngi dégg di am mu xaddamu Cheikhu Tidiane man Ousmane Sonko ci bët laa koy xool wax ko sama xalaat lii dëgg mooy ñiy def médiation def nañ ba tële Serigne Mountakha bi ah. waaw tële nañ sëñ Mountakha kay bu ah. waaw maa la ko yaa ngi waaw bu baax tële nañu parce que mois de mars sëñ Mountakha amul lu mu daj yónni na sëñ Bass Porokhane pour ñu def médiation opposition bi daan ni ko fii sa njaboot ñoo fi nekk waxuñu nga ñaan ñi waaye koy digal muy def moo fi nekk loolu fi la ñu fekk ñun ñëpp. Mhm. ginnaaw bi ci lañ ñoom ñoo yëkkatiwaat dossier bi Macky Sall taxaw ni la fi amoon du fi amaat. mais léegi ñu bàyyi dossier bi teg ko waxuñu ñu bàyyi dossier bi xam nga ñun lan lañ gëm ñun xam nga lan lañ gëm dossier bi waru woon a dem tribunal. mais loolu c'est pas. à vous d'en décider waxtaan. capitaine Touré justice moo koy décider dossier bi kese capitaine Touré ci boppam kenn wérantewul ni sénégalais la kenn wérantewul ni ñoom ñoo ko formé capitaine Touré li mu wax c'est clair xamul Ousmane Sonko. dégg nga euh, nu mu tuddati docteur Alphousseyni Gueye xamul Ousmane Sonko. Mm, gynécologue bi gynécologue bi. loo certificat médical ci la ñuy àttee viol certificat médical bi wane neen ay caaxaan moo ci nekk kon bu ñu continuer bëgg a éliminer Ousmane ko képp ku seetaan complice nga ñun lan la ñu wax. mais médiation yi ñuy wax Macky Sall faalewul médiation Macky rapport de force la xam. ci loolu ngeen taxaw parce que ci la nekk tey ñaata non déglu rek xamoo ñun ci lan lañ taxaw dañoo gëm ni kenn du fi sacrifier kenn. na ñëw ñu toog ci taabal ji ñu wax parce que réew mi ñun ñoo ko bokk. mais du ngeen loolu mooy lan. justice amatu